li nga xam ne mooy tubaab lu gàtt loolu daal euh, xañoon na moo tax ba mu xañ ñu euh, maanaam Coupe d'Afrique bu baax mooy que ci côté changement. Giresse bu daan def changement rek ñun dañuy toog dañuy tiit. ñun dañuy tiit kii nag moom changement yi mu def changement gagnant la. loolu daal loolu daal. C'est de bonne lecture. Ah, Cheikh Tidiane, un garçon les esprits du moins, c'est Moussa Konaté. Mais, mais, mais, c'est révélateur et c'est significatif. xam nga euh, gis nga football dafa gaaw. gis nga football moo gaaw kon nag football euh, évolution bi dafay rapide ba nga xam ne euh, dégg nga fu mu nekk nii gis nga ñii di nekk ci suuf gis nga bu ñu demee ba dugg ba wane sa seen bopp ki nekkoon titulaire ah problème problème day am. Mhm. ba tax na gis nga voilà un gosse. man je ne comprends pas loolu moo tax laay wax ne man je ne comprends pas Alain Giresse je ne comment se fait-il que nekkoon fii di xuloo jàppal baay jël booy bi yóbbu ko ba kaan ba mm-hmm. teg ko ca ban ba te booy bi saay booy bi daal mm-hmm. lenn de mun naa lenn de xam naa ko mm-hmm. mooy musa Konaté saa yu ñëwee en équipe nationale il fait son match mais celui qui marque ngay baataa yow ngay dugal ay ñoo xam ne dañuy ñëw foofu te duñu marqué di indi ay coow ci équipe bi nga bëgg leen gëm ba léegi leen di gëm mm. foofu nag laay wax na Aliou Cissé nag wax na xoolaat comme que lii wax na ko jàngal mm-hmm. ah.